xam nañ àgg nañ ci yàlla daraja boo xam ne amatul dellu gannaaw ah jàkkaarloo nañoo dëgg jeex na mënatuñoo dellu gannaaw de xaalu ñu ne ko lan nuu si rek a tànnu tiñ la de ak loo mën mënti def itam ñun tànn tànn duñ la tànn dootoo doon mukk suñ jiit de alama jaana sa kaw la dikkal nañu mel ne bayinaat ci ay kaw teef yu tegtale nekk ak yàlla de ak wéetam ak dëggug yonent yàlla Muusa de mukk duñ la tànn ci kaw yonent yàlla Moussa gannaaw buñ jàkkaarloog dëgg yoo xam ne dafa leer nañ yonent yàlla Moussa feeñal ko de wala ji ñu ngi gën ca kaaka fatara naa bind ñu ngi gën ci yàlla mi nga xam ne moo ñu bind dafa lu la neex rek gën nañ ne duñ duñ bàyyi yonent yàlla Moussa te dootuñ la topp yow de faq di xatteel nag maa anta laa yow xaadin aji xatte nga ko de defal lu neex rey ñu mbugal ñu wekk ñu ci garab yi daggal suñuy tànk daggal suñuy loxo faale wuñ defal lu la neex de ndax lan innama taq dina ka da nga xatte hasil xayaatu bi lépp dund dunya hadduna lépp looy def rek ah du génn haddina ji rek mbiram haddina rek la te haddina dafay jeex ak lu mu yàgg-yàgg ak yu bëri ak lu mu bëri bëri de inna naka nun aman naa gëm nañu bi rabbina ci borom sunu ñun de gëm nañ yàlla li yaxfira ngeen na mu jégal lana ñeel ñu xataaya naa ay rëcc rëcc suñu ci ak ak ak bokal ak yalla ñu ngi ñu ngi balu yalla ñu koy jéggelu lañ nekkon ci kéfer ak bokalé yépp ñu koy jéggelu ñu ngi ñaan yalla yalla ñu ko yalla jéggel wama akrahtana ak la force nga ñu walé ci moom mi na sexri ci njabal dé ak la ñu forcé ñuy njabar ci kanam yonent yalla Muusa lool yépp ñu ngi ñaan yalla yalla ñu ko yalla jéggel wallahu yalla xayrun mo gën mo gën mo la gën te mo ëpp yool de wa ab xaata la gën te yoolam moo gën sa yool mbugalam itam moo gën a sax sa mbugal de ndax innahu naka luy mbi tey mbit man yaati ku dikkal na mu rabbahu boromam mujriman dib xéefar ku ñëw ci yàlla fekk xéefar nga fa inna lahu naka aji nekk lay ñeel ko jahannama jahannama képp ku ñëwal yàlla fekk ab xéefar nga kooku safara rek jahannama laa yamuutu deexumu fiihaa ca jahannama tam dal di noppaliku bu xasee dugg jahannama dootu dee ndax bu dee noppalu wala yaxya te dund mu te du fa dund itam boo xam ne dana ko jëriñ de du dee du dund mi ngi nekk ci diggante boobu de dund dund bu koy jëriñ te itam du dee de waaye waman yaati yi ku dikkal na mu ko nag muminan mbit mooy aji gëm xad amila jëf nga xad amila jëf na mu saalihaati farata yaag naafila ya fa ulaayka ñooñu la gaay lahum ñaa leen ad darajaatu daraja ya al ulaa ya daway kawe ñi nga xam ne nag ñëwal nañ yàlla fekk gëm nañ yàlla mu ne ñooñu ñoom la yàlla di may daraja yu kawe ëllëg ci aljanna de yàlla nañ ci yàlla boole jannaatu àddinin xayal jannaay sax loolu mooy seen njëkkuwaay ñële seen saxuwaay lu mu waxoon jahannama laa yamuutu fiha wala yaxya loolu lañ leen di teeroo ñi nga xam ne nag ñoo daan gëm yàlla di jëf-jëf ju baax ñoom itam lu ñu leen di teeroo jannaati adnin hay jannaay sax de xal janna joo xam ne xal janna ju sax la te du jeex de tajri dana daw min taxtiha ca suufam al anhaaru yool yi yeneen si de mooy anhaarun min lebanin wa min asalin wa min musaffan ak ndox ak yëpp wa min xamrin anhaar yooyu nga xam ne leen ci suufu aljanna di fa yool anhaar yooyu itam moom lañ leen di teeroo de xaalidiina mbit mu ñu woy beel fiyaa ca la tool ak ca la aljanna wa zalika loolu jazaa'u man mooy paya kaka te sa gas laab laab laab na mu ci ay bàkkaat de loolu mooy paya koo xam ne laab na ci bàkkaati bokkaale ak yàlla de képp koo xam ne yaa ngi liggéey jëm ci yoonu yàlla tëral ko ci kaw gëm gis ngeen ne gëm mooy fondement bi boo gëmee rek jeex na lo ci teg rek yàlla daf la ko yëkkatilee ay daraja loo def rek yàlla nangu na ko yëkkatil la ko ay daraja boo gëmul nag loo def ci lu baax ak lum baax baax ak lum kawe kawe amut benn njëriñ ci àddina bi rek la em su ko defee moom tamit ëllëg amut pay de fajaalnaahu habaan mansuuran fajaalnaahu habaan mansuuran ngelaw rek fuf mu dem yoonam yàlla faalewu ko xoolu ko ndax bëggu ko ndax yàlla du xool ñooñu ëllëg yowmal qiyaamati de la yanzuru ilayhim wala yuzakihim wala wala yuzakkihim du leen xool du leen sellal du leen setal ci ay seeni bàkkaat de bon nag kuy liggéey jëme ci yàlla na gëm yàlla de gëm yàlla nag ci gannaaw ci yàlla muhammad boo bëggee gëm yàlla gu wér tëral ko ci usus yi nga xam ne moom la yonent indi ne noonu la ñuy gëmee yàlla yonent yëwee ña leen toppoon ca lam indi woon ñooñu ay julli ñooñu julliti waa diine jooja la gëm nañ gëm nañ seen yonent waaye nag gannaaw yonent yàlla Muhammad ñëwee nag diine yooyu yëpp folli na ko benn diine amatu ci taxawaay am am amatu taxawaay boo xam ne taxawaayu mën a liggéey ci nit defar ko moom la mënuñ ko amuñ ko su ko defee nag moo tax diine yonent yàlla Muhammad dafa folli diine yëpp boo fi nekkee nag naan suma diine moo njëkk diine yonent bon diine jooju ci lay nekk sama diine diine asamaan la diine téere la te moo njëkk diine yonent bi dama ciy nekk loolu yëpp waxi réer rek la ndax lislaam folli na mboolem diine yi alquran folli na mboolem téere yi nga xam ne jiitu woon nañ léegi kuy gëm yonent yàlla kuy gëm yàlla jaaree woo ko ci buntu yonent yàlla muhammad yàlla nee na waman yabtari xayral islaami diinan falan yuqbala منه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه inna diina inda allahi al islam diine l'islam rek mooy diine si yàlla moo tax l'islam boobu la ko dalee si aadama ba ci yonent yàlla muhammad yonent yëpp ci l'islam boobu lañ nekkoon de l'islam ci lañ nekkoon ndax l'islam cosaanam mooy lan mooy gëm ne yàlla kenn la gëm sa yonent jamono lim da indil ne ci yàlla la bàyyeekoo nga gëm ko yonent yooyu ñëw nañ waaye ñoom ñëpp dañ doon ñëw genn wàll nank nank nank nank nank ci lislaam kenn ku nekk sa lislaam nam nam nam sa jamono rek nañ lañ nañ la ko joxe am na ñoo xam ne seen lislaam bàyyil def lu bon rek jeex na foofu la em bàyyil def lu bon bul def lu bon am na ñoo xam ne seen lislaam bul tooñ kenn tooñ baaxul am na ñoo xam ne seen lislaam ñëwal jullil suba ak ngoon suba ngay julli ak ngoon ngay julli yooyu yëpp am nañ seeni i diine yoo xam ne ak seen atte yoo xam ne moo dëppoog seen i jamono ak seen i nit ndax boobu nit ñi ñoraguñ ñoraay boo xam ne mën naa àgg boole dajale lislaam yëpp wàcc ko seen kaw benn yoon duñ ko àttan moo tax mu di ko def ndànk nag ba mu agsi ci yonent yàlla Muhammad nga xam ne nit mat na dëgër na ci nekk mën naa dégg li nga xam ne moo bàyyi ko ci yàlla jëm si ci moom moo tax diine lislaam moo mujj a ñëw jeexal diine yëpp jeexal téere yëpp ku gëm yàlla jaarale woo ko ci buntu yonent yàlla muhammad gëmoo gëmoo yàlla ku gëm yàlla nag jaarale ko ci buntu yonent yàlla muhammad noo mënti mel jullit nga ci diine lislaam nga nekk ci tawxid ngay nekk ndax yonent nee na jullit bu xasee doo jullit rek jeex na laa yu kafaru bi zenbin bu xasee nekk jullit jeex na bàkkaat génnewu ko ci lislaam bàkkaat génnewu ko ci lislaam bàkkaat génnewu ko ah, ah, njuumte yi nit ñi dugg yëpp mu dugg ci génnewu ko ci lislaam jullit la rek jullit la xas na nekk jullit jeex na ah, li li nit ñi nekk yëpp ci lay nekk mën naa nekk nit ku mën naa nekk nit ku jubadi loolu yëpp yàqalu ko ne ab jullit la bu gëm yàlla ab jullit la bu gëm yàlla waaye nag gannaaw gëmoo yàlla nag moom jeex na amatoo benn xisaab ndax yàlla nee na allahu waliyu lazina ah amanu allahu waliyu lazina amanu wa anna alkafirina lu mu wax la mawla lahum bon ñoom bokkut yàlla génne na leen kii na leen jeex na c'est fini raye na leen ci carte bi jeex na bokkatuñ ah ñi nga xam ne nag ñoo gëm yàlla nag ñoom ñoom ñooy yàlla wax ne ne man ñooñu laa méngoo de <coughs> ah lu ci topp wala xadaw xay naa ñun de wax yu nañu xaali dina mbit bu ñuy woy bel fiaay si yooyu la aljanna wazalika googule wazalika loolu le jazaawu man tazakka mooy pay ak sell na mu sell na mu bokkat ci ay bàkkaat bàkkaati bokkaat ak yàlla wala xadaw xay naa ñun de wax yu nañu ilaa Muusa jëm ci Muusa ñun de wax yu nañ jëmee ci ba nga xamee nag yonent yàlla Muusa ak nitam ñam mooy banu Israël Firawna fitnaal na leen sonnal na leen coono bu nekk rek teg na leen ko jaamloo na leen lu bëree bëree bëri ci ay fitna yonent yàlla nitu yonent yàlla Muusa toggoon nañ ko ci loxol Firawna ba ko defee nag yonent yàlla Muusa yàlla def ko ebaloon ne ko demal ca Firawna wax ko wax bu nooy ndax mu jox la bani israël nga génn ak ñoom dem Sham de loolu moo doon mission génne axrij bani israël génneel bani israël ci ron noteel ak firaw na de loolu moo moo yoroon yoroon ci yàlla Moussa de ba nga xamee ne nag coono bi métti na tat na lool yàlla dal di jox yoroon ci yàlla Moussa ndigal ne ko nag léegi rañaanal génn Misra yoroon ci yàlla Moussa dal di jóg nag dajale ay nitam yépp wax leen joxanteeg ñoom bés wax leen ni ñuy def ngir war a génn misra pour ndax ñu daje génn dem Sham ñoom ñëpp bañ daje ba nga xam ne daje nañ banu Israayil yëpp eh, seeni jigéen ak seeni góor ak seeni ndaw yëpp daje nañ wax nañ leen waxtu wi nga xam ne ci lañuy génn misra lañuy ñuy jóg misra ngir génn dem ca Sham ñu daldi yàlla dal di wala xad awxay naa ñun de wax yu ne ñuy laa Muusa jëm si Muusa luy mbit tey mbit est-ce que rañaaneel bi ba diyee ci jaam sama léegi nag na nga rañaanee suma jaam yi ngeen génn misra ba mu ko defee ba mu génnee dajale nit ñëpp dal di génn génn bi ñu ne ah génn bi dana jafe de ndax naka la ñuy mën a xëyee rek rañaan ne dañuy génn te xëpti yaa ngi nii dañuy gis yaa eh, jibril ne ko na génn rek bu ko defee bu ñu ëllëgee xëpti yi kenn ku nekk rek boo xëyee sa kër jànq ba ca gën a rafet rek dana dee ñoom ñëpp ñu këy rek seen jànq kër yëpp dee su ko defee seen deewu jànq yooyu soxlaa leen walis ñuy xam lii xew ci dëkk bi bu ko defee nag ca fajar sa rek ñoom ñëpp ñu rañaandal di génn nag ña nga aw yoonu Saam di dem bañ demee di dem ba waa Misra yi toog toog toog toog toog ba ngoon jot ba timis di waaj jot ñu ne waaw ñu de tey gisuñ benn Israël si dëkk bi lu xew ñoom nekkuñ fii ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu seetaan daal ne wax ngeen dëgg di dëkk bi benn yahud nekku fi benn israeli nekku fi léegi nag du ñuy def ñu xam ne génn nañ gàddaay ba ko defee nag Firawna dal di dajale ay nitam ak i soldaaram ak lépp loo xam ne am na ko ci arme ngir ne dafay dabi yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa ngay dem Firawna ko topp ak mbaambareem xare moo xam ne kenn mënu koo eh, eh, eh, léem firawna Muusa ba muy dem mu ngi jiital ci kanamam ku ñuy wax Kaalib jiital teg ci gannaawam ku ñuy wax Yusha ibnu Nun ba mu ko defee këlee ngay dem jiitu xare bi kee ngi des gannaaw di seet itam lan moo nar a dab si xare bi Kaalib dal di dema dem a dem ba ne yonent yàlla Muusa àgg nañ ci géej goo xam ne dara mënuñu see jàllale lu dul ay gaal te ñoom amuñ gaal ki ci gannaaw ne ko yonent Yàlla Moussa firaaw na dab si nañoo mambarim xare moo xam ne kenn mënu koo tekku de danañ ñu jot ca musa wa Moussa waxee kalla innama rabbi sayahdini kalla innama rabbi sayahdini déedéet duñ ñu dab ndax yàlla ngi ànd man te yàlla dana ma jubal de ba mu ko defee ba mu ba ci géej gën ak sësce xamuñ amuñ pexe xamuñ nu muy def yàlla ne ko fadrib dóoral lahum ñeel leen tariqan yoon fi bahri ci géej ga de jëlal saxet woowu ma la joxoon nag nga dóor ko ci géej gi bu ko defee dégg ngeen xottil ay yoon yoo xam ne ñoom ñëpp ci la ñuy jaar ba génn de yebe seen yoon bu dee aji wow nga xam ne ndox nekku ci wow na koŋ mel ni ndox musu koo muur laa taxaa fu ragal te la dara kan ak jot ñoom duñ la jot firaw na du la jot de wala taxsha te ragal te la lab itam te doo lab ci géej gi de demal rek Moussa dal di jël xeet wa dal di koy dóor ci géej gi géej gi xotteeku fukki yoon ak ñaar muy giit ak bani la xam ngeen ne fukki teer lañ fukki giit lañ ak ñaar fukki geño lañ ak ñaar bu ko defee nag geño gu nekk nag dal di aw sa yoonu bopp nga xam ne ci ngay jaar rek dem ci euh, ba ba ngay génne ci géej ga de ba mu ko defee yahóot bañ duggee ci géej ga gisantewuñ ndax duusu ndox yi ñoo jaar seeni diggante ba mu ko defee ñuy ka gis nga Moussa daf ñoo bëgg a rek ci géej gi ana suñu morom yi ñoom ñëpp alaku nañ ñun rek ñoo fi des nangam ak nangam yàlla ne Moussa bënnal sa bënnal ci sa et wi Moussa bënn et wi rek ndox yëpp dal di def ay palanteer palanteer ñoom ñëpp ñuy séenante de ba kenn na bootul sa morom ñoo xam ne nag Moussa daf leen a bëgg a musal rek ba mu ko defee nag Moussa ñëw na ci géej gi dugg na dema dema dema dema dema dem ba ci digg géej ga firaw na agsi bi firaw na agsi ak mbooloom ne ko mu ne leen gis ngeen géej gi sax daf maa ragal ba xotteeku na utal ma yoon moom loolu la wax tiitaru bakkan bu rëy firaw na géej gi daf maa ragal ba xottil na ma ay yoon de ñu ne ko nu ñuy def moo leen naa ah, dugg leen rek leen rek ñu daal di duggu moom mu dem beru fële buur la dafa ñaaw njort dem taxaw ca kaw di leen seetaan de ba ko defee ñoom itamit ñu dugg ñoom ñëpp ci géej gi bañ demee ba nga xam ne nag ah, yonent yàlla Moussa génn na Firawna soldat yi Firawna yi agsi ci digg géej gi rek yàlla daal di tapp géej gi ci seen kaw de ñoom ñëpp ñu lab na nag daldi mu ma ngay waññeeku ne mu ngay ñibbi këram ndax xeetam wi jeex nañ ba mu yoññeeku rek gis fasam wi gis fas wu jigéen ca digg géej ga muy ngaxal rek fas wi dafa <coughs> fas yu dafa bi ko gisee rek muy jigéen rek mu daw jëmali ko moom tamit daaw rek jëmali fasu fa fasu ci digg géej gi de ndekete du fas jibril la de bi mu dawee dawa dawa daw ba agsi Muusa Firawna jibril ne ko Firawna yaa ngi nii mu ne ko waaw mu dal di benn këyit jox ko ne ko seetal lii yaa ko bindoon yaa ko atte woon fekk Firawna dafa musa jibril dafa mus soppeeku nit ñëw ci jibril ñëw ci firawna jibril dafa mu soppeeku nit ñëw ci na ne ko dama lay laaj su fekkee am nga sa jaam ci sa kër defal ko teraanga màggal ko cëral ko yëkkati ko ba mujj nag di wax ne yow yaag moom yéen a em ci kër gi wala sax moo la ëpp dara ci kër gi di ko wone di ko doxee kooku luy àtteem mu ne ko yóbbu ko ba ci géej gi rek nga feesal gémmiñam gi ak suuf rek nuural ko ci biir géej gi loolu mooy àtteem de mu ne ko mu woog nag tey sa bés nii yaa ne ana rabbukum la la doonoo ko bon nak sa bés a ngi nii saate ya ngi nii jeex dañ lay su su su suuxal ci géej gi rek mu ilaha illa allazi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimina legi nak tubna naa ne li bani israila gem rek lolu mo yalla de legi man gemnako, naa ko yalla ne ko al ana léegi gannaaw bu yep jeexay nga ne gem gem gëm jeex na de c'est fini ndax jakar li nga don weddi yep jakar lo nga ak mom de ken la de bam ko defé nak ci la ko ci faat baawum topp leen firawna firawna bi junuudi ci lalam ya firawna dal di koy topp nag ak xareem bu rëy booba faxasiyahum muur leen minal yemmi ca géej ga maaxasiyahum la muur na mu leen de ba mu ko defee géej gi yëpp dal di muuru ci seen kaw wa adalla sànku firawnun firawna xawmahu wa adalla ta sànk firawna firawna xawmahu ñu tam ñe de firawna dal di sànk ni tam ñëpp ci xoo gim leen xooxoon ñu jëm di ko jaamu ne moom moo yàlla de wa ma hada ta jubalu mu kenn yonent yàlla Eh, yonent yàlla Moussa musa na ni tamit ci yàlla ñëw nañ yàlla musal na leen Firawna mi oo ni tamit ne nañ ko jaamu nag mu ne leen mu ngoog nag yéen a ngi noonu jeex ngeen xalaku leen ci géej gi de yaa bani israila ee eh, yéen bani de musal nañu leen mi naa duwikum ci noon seen yéen a ngi nii nag musal naa leen ci seen noon eh, génne naa leen misra xottil naa leen géej gi ba génn ngeen ba agsi ci ardu Sham de wa waat naakum dal nañu leen jaani ba tuur yi ca wàllu jëbalu tuur ay mani ga de joor de foofu laa joxoon teeg yéen rendez-vous de te foofa nag ah, foofu la yàlla di gisee ak yonent yàlla Muusa jox ko tawraat da wa nazzalnaa yàlla daldi di deeyaaleeg yonent yàlla Moussa ca kaw jabali tuur jox ko tawraat wane nazal naa ñu wàcce aleykum ci yéen al man na man na wa salwa ak salwa mooy ñaari kéemtaan yi nga xam ne ñoom lañ doon lekk de ndax bañ génne ca géej ga liñ njëkk def mooy dañoo gis rek ay mbooloo yoo ay nit ñoo xam ne ñu ngi jaamu ay xërëm ñu ne Moussa defal ñu yàlla ju nii ni ñun tam ñu di ko jaamu dal de ñoom loolu la njëkk a yàlla de bi leen yàlla musalee li ñu njëkk a fayee utal yàlla bokkaale de ba mu ko defee nag ñu dal di réer yàlla gëlëmal leen ngëlmaane goo xam ne xamuñ fu njëm ñu nekk ci ngëlmaane googu ñeent fukki at di xëy di dox rek buñ doxee ba ngoon rek ñu àgg fañ xëyee woon fanaan bu ba setee rek ñu xëyaat di dox jant beeg jant beeg lay beeg yëpp di sottee ko suñ kaw amatuñ luñ lekk yàlla dal leen wàcceel almannu ak E ak selwa muy ay picc yoo xam ne dañoo ñor rek di wàcc ci seen kaw selwa itam lu mel ni génn nak goo xam ne dafay taw ci seen kaw rek ñuy dajale di lekk de ñu nekk ci nag lu mat ñeent fu at yàlla na leen kulu lekk leen min tayyibaati maa razaqnaakum ca way neex yi wërsëgal nañ leen ko de yu neex yi ma leen wërsëgal lee leen ci lekk de wala tatraw te bu leen bew fii ci moom di weddi xéewali yàlla fa yaxilla tawa tawàcc aleykum seen سما nar sama bu leen nag loolu ma leen wàccee ci wërsëg nag da leen ko lekk te bu yàlla ci yéen ndax weddi xéewal mooy buntëb kéefër mooy buntëb kéefër yàlla moo ma may xéewalam naa sant yàlla waaye samay pexe laa ko amee samay dugg-dugg laa ko amee samay itte laa ko amee loolu yëpp weddi xéewal gu bàyyi ko ci yàlla la waaye xéewal yàlla moo koy maye ndax pexe moo def rek pour àgg ci alal yooyu sa morom def na ko te àggu ca ah sa morom tëdd na ci kaw lalam dara nekku fa amut dara alal ju bëri fekk ko fa te liggéeyu ko de dafa ñëw rek yàlla ko wërsëgal ah lépp loo xam ne nee na nit moom la def ngir am moromam def na lu ko ëpp te amul dara xam-xam moo ko may borom xam-xam ngi ni di dox ci mbedd mi amul dara eh, itte moo ma ko may borom itte ngi ni amul dara sama yaram bu wer may dug ko genn ku febar ngi ni amna lu nek ta amo dara lu won nak du yow ya am sa xewal gi ya ko amal sa bop yalla mo la ko may de gannaaw yalla mo la ko may nak na nga ak yalla ci li nga xamne may na la ko sant ko de mune motax dañuy wax naan eh, na nga sante almun almunimu alfaraxu bilmunimi xayrun min alfaraxi bi niama ki la jox wërsëg nga bégee ko kooku moo gën ngay bégee wërsëg wi de ndax wërsëg wi dafay jeex rek du dara ah lekk naan tëdd passé wu ci loolu lu bari bëri bari loolu rek nga ci am lekk ba sa biir fees naan ba màndi am foo tëdd rek loolu ku nekk am na ko ku nekk yaa ngi lekk di naan am foo tëdd am nga wala ña miskin meeg buur bi ñoo ci am benn lal la am di ca tëdd lal ba itam benn xaaj bu ndaw la cay tëdd lekk gi itam lekk biiram fees rek naan biiram fees jeex na mën mënta passé foofu ci wërsëg wi li ci des itam lu mu bëri bëri mu foog ne dajale na ko moom ko daf koy dajale rek dee ñeneen jël ko ci ñeneen jël ko di ko di ko di ko jëriñoo de bon wërsëg woowu la yàlla may nag bu ci fàtte yàlla jënd ci ëllëg balaa ëllëg a ñëw fekk doo am dara de fa yaxillata wadd aleykum ci yéen xadab fa yaxillata wàcc aleykum ci yéen xadab yi mer sama su ngeen defee loolu nag sama mer dana wàcc ci seen kaw de waman yaxlul ku wàcc na aley ci moom xadab yi mer sama faqad hawa kooku rod na mu ci safara képp koo xam ne yàlla mere na ko kooku na kam ne safara la jem de waaye nii naka man yàlla la xafaarun jéggale xaakoon la li man taaba ñeel ka tuub na mu képp koo xam ne tuub na nag jógee ci yéefar dem ci jullit wala jullit bu tuub ci ay bàkkaatam jéem a sellal boppam mu ne ñooñu ñëpp yàlla nee na dina leen baal de summa hada summa htada topp mu jub de tuub jógee ci kéefër ñëw ci lislaam wala tuub dellu ci say bak tuub ci say bàkkaat ngir rafetal sa jikko loolu yàlla nee na dana la ko jéggal de allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mu ngi noonu kon euh, loolu mooy euh, li nga xamante ne moom moo di kon prime euh, alxuraan mi ci bayal bu Medina bàyyi ngeen ko doon teewlu en direct ci rajo Alfayda 90 point 1 Eh, eh, mu doon nag eh, ci teewaayu mbokki taalibe yu takko takku waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mbokk yi bàyyeekoo woon na ci jaspora bi ñoom ñëpp teewe woon nañu ko moo xam ci Ghana ci Nigéria fi nga xam ne moom moo di kon ci bi ak Mauritanie ñoom ñëpp ñëwoon nañu ngir daal di fekkee si lii muy firndeel rek ne kon ci gàmm gi ñi nga xam ñoom ñoo di mbokk jullit ñi bàyyeekoo ci àdduna wërngël këpp ñu ngi ñëw fi nga xam moo di ci Médine a bàyyi euh, euh, dañuy jéem am euh, li nga xam ne moom moo di kon waaw kon ëllëg incha allah day amaat ci bayal bu dina Baye di prime alxuraan mi ak Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Tidiane Diagne moo nekkoon ci sottandiku kàddu gi jaajëf Moussa